on le connaît, c'est l'homme des 31 décembre. Événement bu organisé le 31 décembre. avec Pape Diouf vous vous souvenez police française moo avec Assane Diaye.. avec Salam Diallo cette année ci après trois ans d'absence.. nous Vivian Viviane Chidid mooy ñëw Rakhou ñu ngi lay nuyu. maa Nous lay fay Rakhou balade. Avec caméra toi tu balades quoi es partout. Oui mais événement moo waral y a di la ah. culture sénégalaise et la musique sénégalaise. une mhm. promoteurs yi ak ñun moo nous ñuy y a def. Rakhou yaa ngi jógee de Dakar. Mhm. fu sant yalla ndaxte visa yi sorti na artistes yëpp amna ñu seen visa bu nexé suñu borom ñun ñëpp dinañu ñëw Viviane pap Thiopet di bundu gis donc dañuy sant yalla encore une fois di wax na nak ñu ngi ci sur la dernière ligne droite affaire bi jot na ba paré sénégalais dañu bàyyi tout temps à la dernière minute dañuy bàyyi ba jour bi naan ànd billet yi fu mu toll ak loolu nag na ko gars yi dem jënd seen bi ben affaire dafa am nous nga une ne prévente dañuy am facilité bu yomb facilité énorme aussi Nous taxaw ci seddaay bi di xaar ndaxte mettre en priorité quand ils viendront nous na buntu boo xam c'est vraiment Nous lañ koy ubbil buntu boobu ñoom ñoo koy donc nous na gars dem billets billets sont déjà disponibles Nous avons wax Fnac Carrefour Intermarché ak France billets, ak restaurant La Pointe des Almadies

bu boo fekkee ne yow da nga dem jënd billet boo xam ne baaxul boo ñëwee ñu mën nañ ko détecter xam ne sa billet baaxul donc sénégalais yi ñuy bàyyi di dem ci saal yi taxaw di xaar ay nit di leen jaay ay billets 20 euros 15 euros ndaxte ku ko ci def sincèrement si le billet n'est pas bon malheureusement pour la personne du mën a dugg passé la fin d'année avec ñu ak ñu. Rakhou dama dégg nga naan prévente am na ñu comprendre lu prévente maanaam lan mooy prévente. prévente mooy jënd sa billet avant bis bi c'est bu ñu ne prévente mooy dañ leen faciliter le mi côté le a jënd ses billets mooy yow am différence bi nga xam ne moo ci donc si ñuy wax dem leen jënd déjà am na da ngeen ciy gagné mooy billet bi ngeen di jënd ci prévente bi du moom ngeen di jënd donc déjà rien que cela ça vaut le coup d'aller acheter son billet maintenant euh, encore une fois avec dama koy wax Sénégalais sénégalais nañuy bàyyi à la dernière minute

toog xool seen spectacle ku ñëw nag bëgg a toog xool spectacle dans ce cas tu paieras 60 euros plus la consommation da ngay fay 60 euros jox la sa consommation nga naan su fekkee nag ñii dañ bëgg VIP open mooy bi nga xam ne ne moom mooy moom mooy moom mooy temps yoo xam nga. mooy VIP open quoi. mooy mooy mooy mooy high level bi. mo exactement mooy première classe. dañ ah. koy wax donc ñooñu en fait dañuy am seen i table dina am lépp loo xam ne xam ne dinañu mën a sàq mi dinañ leen mën a tegal ay affaire yu neex te ils seront vraiment à l'aise on a mis vraiment moyen yi nga xam ne ñoom bu ñëwee toog dañuy gis te dañ naan non ça vaut le coup dinañu gis artistes yi dinañu leen mettre dans des bonnes conditions il y aura des serveuses yoo xam ne ne ñoom la ñuy toppatoo de A à Z nan ak sénégalais yi am discipline c'est important ndaxte aussi buñ leen di jàppale nañ ñuy jàppale affaire yu yomb mu am benn fluidité boo xam ne ne duñ fi nekk di xëccoo di ngaayoo xale yi daal dinañ ñëw solo ba jekk toppatoo leen li mu ko waxee nag loolu nag dafa am coût coût bi mooy 200 euros mooy bouteille que ce soit sucré ou sans sucré et dañuy am seen i 45 euros bu ñu toogee à 5 quel que soit le nombre de personnes ils auront une table à 200 euros donc ça je pense que ça vaut le coup Le même ni 31 décembre. Tange bu ma koy wax les billets d'avion sont chers c'est la période Salbi d'un coup doublé. doubler personnel bi 30 ans de décembre que ce soit la sécurité les gens qui payent pour toi ni nga xam les ndax double donc loolu ont dafa un coût aussi donc nous ñun c'est impossible bu vous ko c'est parce que vous ne loolu pour nous aussi nous dans des bonnes conditions. Nyoko Degondo, déggandoo parce que fête de fin d'année 31 décembre terminer l'année en beauté ici au palais des congrès de Montréal avec trois artistes la reine du Djolof Viviane Chidit, Papa Etiopé, Dip Dundugis. je vous ai dit c'est l'homme qui fait cartonner tous les podiums hip hop à Dakar dama gagne, gaañ une première une première une première fois à Paris. exclu avec la Production donc prévente 45 euros sur place. 50 euros place assise 60 euros avec consommation yéen high level nak jënd leen seen billet 45 euros 50 euros ça dépend de vous. ñu toog ci table nag xale yi pari xale pari xale yi 1000 euros sax ñu jënd ko. non xam naa la pare nañu pare nañu loolu du problème maanaam ñoom Fat Fall Fall Balago. waa Sénégal na ñom ñoy ñoom ñooy la ñom ñooy VIP high level ñom ñoy tek ay table 200 euros. wa Fat fal non la may bés bi. xana waajal rek ñu koy waajal comme ni ko ñëpp du waajale préparé ko diko téru ñu ko ñaanal mu dal ci bisimilah rahmaani rahim. yow pare nga moom. man yàgg na gisoo ma. daf mel ni xale yi pare temps yi moom la ñuy waxee naa lépp. ñoo ko déggandoo jënd naa robe bi jënd naa dàll fi na ni Viviane laay xaar rek mu ñëw ma bombardé. dégg ngeen Fat Fall Balago lu production lu bombardé rendez-vous le 31 décembre à partir de 21h ku mu fa fekkul di nga buuxante robe de classe neuf de papillon Nico ko Cravadi. Si waxee cravate yi siré leen dàll yi Viviane woyal Papa Ndiaye ambiance leen dip rabal leen dama ne C'est le 31 décembre au platine DJ aussi c'est lui qui va assurer l'ambiance avant artiste de yéeg DJ Joe. Ah. DJ Joe c'est le DJ Joe de tout le monde. Donc rendez-vous le 31 décembre avec Viviane Chirite, la reine de Djolof au palais des congrès de Montréal. Gagne, du yomb